إنني أثني على خير منأمي ولا أستكي للخلق من فخد أن أمي ألا إنني أثني على خير منأمي ألا إنني أثني على خير منهمي ولا أستكي للخلق من فخد أن أمي ألا إنني أثني على غير منهم ولا أستكي للخل من فقد أنهم فمن ذنني في قربتي ساعة سللين إلى خير مخل وازن فهو قد أمي لو أتكيل فيه وفقري وقربتي وأرجو رجويها إلى الخير منحني سكوت له أكسي فأزكى وكان لي بما فاق سني فهو أكرم مكرمي مع جانبي من قرأ كفر بي فأنعم أماني تاردا كل مجرمي الإيمان من خبرهم كفرهم بي فانم امانين تاردا كل مجرمي لو شكر مني راجيا من ام ادلبي بلا كلفة مني وخرس على مخرمي لئن قرني لئن قرني لئن قرني من قره سن آسدا فما قرني من قارني بتكرمي أغني للجار في البر ساقلا فقد جاءني في البر جود المكرم ومن ساءه كوني لمولاي, لمولاي عابدا وكوني قديما للسفي المقدم ومن ساءه كوني لمولاي عابدا وكوني قديما للسفي المقدم فإني له في البر والبار عابد خديم لمنجن من دواعي تندم ومن صدأني فالمواهب أقبلت من الواسي المغني أفيس المقدم ومن يلقني في البر روما لقربتي فلي من إلهي عوض في كل أيلمي لربي تجائي في أدوري وقيبتي وبالمصطفى أسكو له نهمة ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di yëkkati ay kàddu ngir taarale ko jataay bi ci turu sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou ginnaaw bi ñu da ginnaaw bi ñu dalalee sunu yaakaar yi tey ak ëllëg mu toog fi toogaayub Serigne Touba Xaadimu Rasuul muy Cheikh Mouhamadul taxaa moom Cheikh Mouhamadul Basir Serigne bi Serigne Abdou Samad nee na moom ak njabootu Serigne Touba gi fi daje ak mbokki taalibe yëpp ñu ngi ànd fas seen bopp di la ñaanal sunu borom wéral la te guddal saw fan. nee na mi ngi lay ñaanal li nga bëgg a liggéeyal Serigne Touba lépp yàlla na nga ko yeggaleeg ñim la soobee. mbégte mi mu am tey jii nee na amul fenn fu mu ko mën a takk ci àddina ndax xam na sa diggante moom ak yow nee na yàgg na du tey waaye mbégte mi mu am mooy ginnaaw bi nga joxee ndigal ci weeru koor wii ñu dundali ko fu mu mën a doon ci senegal ak ci bitim réew képp kuy wuyoo ci turu Serigne Touba Xaadimu Rasuul képp kuy wuyoo ci tur murit ak taalibe ci la taxawale bërëb bii ne fi la lay njëkk a dalale mbar mi da ko defar defar ko tudde ko mbarum alquran ak qasida fas yéene ndigal li nga joxe ci wéru koor wi ñu diko dundal fi ba wéru koor wi jeex neena defu ko dara lu dul lépp luñ fi jànge mu ñaanal la fi sunu borom guddal saw fan wéral la di sàkku itam ñu diko def ci ay bërëb yu faccanti ko mi mu am tay ji nak bi ngay ex ci jotaay bi mi ngi feggo ak serigne Ahmadou Rafahi moom Cheikh Mouhamadoul Fadal feggoo ak sëriñ Basiiru Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne si lépp la fegoo ak sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou wax ne ñoom ñii dafa wax ne yéen maag yéen ñoo bokk pas-pas bokk sëriñ Touba Xaadimu Rasuul sëriñ Touba nag buy jóg di ñëw ci daara jii nga xam ne daara yi sëriñ Chouaïbou la damaa bëgg ngeen ñëw nu àndandoo dalal sëriñ bi ñu ñëw jiit su la fii yëkkati fi ay xasaayit toog di la néggandiku Mbàkke noo ngi lay ñaanal sunu borom lu saw fan gudd rek doyul noo ngi lay ñaanal lépp jëpp yéen a joo am ci sëñ Touba ko waaye nag nee na tout tànk yi doon yëkkati xasaayit ay sëti sëriñ champs yu ba lañ ñoom ñoo la tatagale xasida ak yaa xayra day fin nga darale la ko ci bis bii wax ne yii benn bi nóoru daaree nii la nooru daaree nii googu moom moo tàmbali mbind mi ak njabootam ñoo ko yeggale mu bëgg lu ko daleel ndax ku xam na sa digganteeg xasida yi ku ne xam na sa digganteeg alxuraan beneen waxande wi lu toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett moo ci nekk nee mu yëkkati ko mu di lim ne da la koy ziare ci nooru daare nii nee na sëriñ Amsatu mii moom sëriñ Chouaïb bu moo ko bind yëkkati limub alxuraan la toll ci juróom-benn fukk ak juróom-benn muy 66 mu di lim nee na mu yëkkati ko dolli ko ci yëkkati ñaar fukki maraaxib ak juróom-ñett muy 28 nee na mu dolli ko ci lépp nag da cee jublu rek nee na ñaanalee la ko suñ borom guddal saw fan ni mu ko waxee. yéen a ji nga am ñëw ci bis bii siyaare si ko mboolem ku dib taalibe wax na la ko ne leen ñëw leen ñu tatan gu tey ci kii nga xam ne ñun ñëpp kenn ku ci nekk am nga pas-pas boo ko ëmbal ci sa biir mi ngi nii ñaar juróom juróom benn fukk la ak juróom benn أبيض أمين للأسيس المتمم كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم خسن سترأ علي من المولى صلاة بالانتعاء بآل وأصحاب nee na ñu ngi ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér nee ba li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba. liggéey ko ci yoon wi. nee na mu mottali ko. nee na ñu ngi koy seere rek bu yàggul. nee na waa waajuram wa Cheikh Abdoul Ahad Mbacke daan doxe nee na doxin woowu dañ koo gis ci moom. nee na moom rek moo ko ñaareel. nee na mooy koo xam ne boo ko nee yàlla nga gudd fan. nee na du la tontu. boo ko nee yàlla nga am ngërëmul sëriñ Touba. mu ne la amiin. ci turu sëñ Abdou Samad. nee na kon ci turu sëñ Abdou Samad. nee na ci lay jotalee kàddu yi. ndax xolam fees. ndax nee na xolam moo fees. waaye li mu yéene woon. waaye li mu yéene woon. bëgg ko wax bëgg ko ko wax. làmmiñam rek ko ci doy. nee na làmmiñam rek moom moo ko ci doy. ndax dikk dikk. ndax nee na dikk gii fi sëriñ bi dikk. ni mu toll ci moom. ni mu toll ci moom. ak ni mu rëyee ci moom. ak ni mu rëyee ci moom. nee na ndax bu ko doon misaal. day wax ne lii daal jomb na ko. waaye xam na ni. ci lu baax ci lu baax rekk ci ngay xëy. ci ngay gont itam. looloo waral nee na looloo waral. ni nga toll ci moom. nee na ni nga toll ci moom. ak fi la suñu borom yóbbu. ak suñu borom yóbbu. moo tax bi ngay ñëw. nee na moo tax bi ngay ñëw. mu tànn ci njabootu Serigne Touba. mu tànn ci njabootu Serigne Touba. ñoo xam ne. ñoo xam ni. ñëpp xam nañ seen taxawaay. nee na ñëpp xam nañ seen taxawaay. melokaan wi xam ne. nee na ci melokaan wi nga xam ni. Serigne Touba bëgg na ko. Serigne Serigne Touba bëgg na ko bokk ci moom. mel ni mel ni. muy Cheikh Ahmadou Rafahi. nee na muy Cheikh Ahmadou Rafahi Mbacke. moom Cheikh Mouhamadul Fadel. nee na mi nga xam ne taxawaayam. ci yoon wi. ak i kàddoom ak i ñëpp koy dégg. nee na ñëpp a koy dégg. ndax eh, li muy wax yàlla rek ndax nee na li muy wax de yàlla rek kay tax. te bëggu ci lu neex nit. bëggu ci itam lu naqari nit. ak sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou nee na moom li ngay seere ci moom. nee na doy na sëkk. ndax fépp foo ko fekk. amul jënn yitte. lu mooy sëriñ Touba. ak xaside yi sëriñ Touba yi. ak xaside te xaside yi. nee na mooy mbootum yoon wi. nee na te moom nag sëriñ tubaa defal ko ci tawféex. nee na ñu koy seere waxtu wu ne. nee na kon sëñ Abdou Samad wax na ni. ñi fi teew ñëpp. ñi fi nee na muy bokk yi. ak bokk taalibe yi. ak seexi sëriñ Touba yi fi nekk. waaye ci ndigalu Serigne Cheikh nag. waaye nag ci ndigalu sëriñ Cheikh. mi nga xam ne. mi nga xam ne tey. moo fi jëmmi Serigne Soñ. moo fi jëmmi Serigne Soñ bu. nee na lii muy def. nee na lii muy def. ci loolu la koy defee. ci loolu la koy defee. nee na ci ndigalu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Soñ bu ci la koy defee. nee na cant gi nag. nee na cant gi nag. balaa santal boppam. balaa santal boppam. day santal yoon yëpp ci yow. day santal yoon wépp ci yow. ndax xam na ne. nee na na xam na ni. cant gii mu la ëmbal. cant gii mu la ëmbal. ñëpp la ko sant. nee na ñëpp la ko sant. ndax nee na. ndax nee na. yaa sëriñ Serigne Touba. yaa fi Serigne Touba. waratoo jug di fekk kenn. nee waratoo jug di fekk kenn. kon lii boo koy def. kon nag lii boo koy def. nemmeeku sa njaboot. nee na da ngay nemmeeku sa njaboot. ak soññu leen rek nga ci jublu. te nee na yaa war a toog ñëpp di la fekk si. nee fii nga toog tey itam. nee na fii nga toog tey itam. waratoo yëkkati di jox kenn dara. nee na waratoo yëkkati di jox kenn. te yaa ngi yëkkati di jox njabootu Serigne Touba. te yaa ngi yëkkati di jox njabootu Serigne Touba. lépp ngir bëgg liggéeyal Serigne Touba. lépp rek ngir bëgg a liggéeyal Serigne Touba. kon nag loolu. nee na kon nag loolu. nee na balaa santal boppam ci dikk gi nga fi dikk. neena na balaa santal boppam ci dikk gii nga fi dikk. mi ngi santal njabootu Serigne Touba gi. mi ngi santal njabootu Serigne Touba gépp. ndax xam na ne dikk gi ngay jóg di leen fekki. ndax nee na dikk gi jóg gi ngay jog di leen fekki. ak defar ak defar. ولتدخل المصلحة نانا ولتدخل المصلحة في يدي وفي في يدي وفي داري وثبتنه داري وثبتنه بالهادي الوفي بالهادي الوفي نانا تلو رك لتابي كون نانا ميغلي سنت بو باخ نانا سديك اك موم نك نانا سديك اك موم نك لكو جك لكو جك موي سديك اك سيرين شعيب موي سديك اك سيرين شعيب ناخ ñëpp na ndax ñëpp ko xam. bañ na ko ba. bañ na ko ba. Serigne Cheikh mi mag ci njaboot gi. nee na Serigne Cheikh mi mag ci njaboot gi. nee na dala daan wax ni. lu jëkk li. lu jëkk li. yaa mag ci njabootu Serigne Souhaïbou. yaa mag ci njabootu Serigne Souhaïbou. nee loolu nag. nee na loolu nag. luñ mas a nekke rek. luñ a nekk rek. yaa koy jiite. yaa koy jiite. ba tey ngay Serigne Touba. ba tey jii ngay Serigne Touba. nee na nga boole ñaari cër yëpp. nee na ak cantam ci yow. nee na kon nag ak cantam ci yow. nee na amut fu mu tàmbalee. nee na amut fu mu tàmbalee. nee na jumaa ji. ji. nga xam ne Serigne Sonia boo ko digal ne Serigne boo ko ko digal ci wàllu baatin. Serigne ko ci Zahir. nee na li mu ci sonn sonn. nee na li mu ci sonn sonn. na caabi yeeg lépp. nee na caabi yeeg yëpp. jël na ko jébbalaat la ko. jël na ko la ko. bu la neexee nga bañ ko ubbi. na bu la neexee nga bañ ko ubbi. loo ci wéyal rek. loo ci wéyal rek. loola mooy wéy. nee na kon daal ci gàttal. ngir bañ a guddal. ndax sab jataay. amoo wenn waxtu. nee na amoo wenn waxtu. waxtu wu mu doon ci yow rek. waxtu wu mu doon ci yow rek. jël ci yow fukki minutes nee na ku jël ci yow fukki minutes sax ëpp na. kon nag ñu ngi nee na kon nag sëñ bi Samat mi ngi lay sant. di la gërëm di la gërëm. la ñaanal di la ñaanal. liggéey bi nga bëgg a liggéeyal Serigne Touba. liggéey bi nga bëgg a liggéeyal Serigne Touba. te muy loo xam ne. te muy loo xam ne. ñëpp la ko yéene. nee na ñëpp la ko yéene. ndax ku fi ku fi a nekkal Serigne Touba. ndax ku fi mas a nekkal Serigne Touba rek. tërbiyewu nga ko. tërbiyewu nga ko. ba làq ngërëmam. ba làq ngërëmam. ndax li nga daa wax rek. ndax li nga daan wax rek. sama kilifa. sama kilifa. dama koy bàyyi boppam. sama dama koy bàyyeeg boppam. bàyyi ko sama jëmm. bàyyi ko sama jëm nee na loolu nag. nee loolu nag. njabootu Serigne Touba gépp. nee na loolu njabootu Serigne Touba gépp. fas nañ ci yéen topp sa ginnaaw. fas nañ ci yéen topp sa ginnaaw. ànd ak yow ci noonu. ànd ak yow ci noonu. mooy jiitu jiital la. mooy jiital la. te te foo jëm rek. te foo jëm rek. ñëpp ànd ko yow. ñëpp ànd ko ak yow. ndax xam na ne ci seen njëriñ rek nga leen jëme. ndax xam na ne ci seen njëriñ rek ci nga leen jëme. kon nag jotaay bi yàlla na yàlla na yàgg. nee na ñu yàgg koo taxawe te ngërëmul Serigne Touba li nga ciy dàkk itam yàlla na gën a sotti ko ci yow yàlla na gën a sotti ko ci yow ndax xam na ne am nga ko bu wér nee na waaye nag yàlla na yàgg wasalaamualeykum wa rahmatullahi sëriñ bi nee na mu wut murit yëpp ci bis bi njëkk ci koor gi nga yeesal taalibe ak murit yëpp ci moom yeesal seen njëbbal ci bis bi sëriñ Abdou Samad dafa wax ne nee na sëriñ Abdou Samad dafa wax ni mi ngi ñaan. mi ngi ñaan. ci bis bii jëkk ci koor gi. ci bis bii jëkk ci koor gi. ñu ñu ñu ñu ñuy dagaan. nee na ñuy dagaan. yeesal taalibeeg murid yëpp. yeesal taalibeeg murid yëpp. ci jëmmam ci jëmmam ji. yeesalal taalibeeg mboolem yoon wi. nee na yeesal taalibeeg mboolem yoon wi. ci jëmmi sëriñ bi ci nee na seenu jaayante ak sëriñ Touba ci yow. ci jëmmam ji ci jëmmam ji. te loolu yaakaar naa ñëpp foofu lañ nekk. nee na te loolu yaakaar naa ñëpp foofu lañ nekk. nee na barki démb rek. wax na ko moom nee na wax na ko ko moom mii. nee na sëriñ bi ku amut ci moom lu baax. nee na sëriñ bi. ku amut ci moom lu baax. ku amut ci moom lu baax. jàpp na ne lu baax kon amutul njariñ. jàpp na ne kon lu baax amutul njariñ. te lu baax ba faaw dafii ne. nee na te lu baax ba faaw dafii ne. kon nag yàlla nañ ko xamee noonu. kon nag yàlla nañ ko xamee noonu. te te te yeesal ci pëstéef bi. te yeesal ci pëstéef bi. yeesal ci jaayante gi. yeesal ci jaayante gi. yeesal ci jëf ji. yeesal ci jëf ji. te sellal ko nag te sellal ko nag. nee na te muy dëgg ci ñun. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ni ma ko jàppee nee na li ma ko jàppe woon rek. nee na jóg ngir ñëw ci jumaa ji. julli fa ñaari rakka. muy mbégte ci man. nee na loolu muy mbégte ci man. nee na mu doon mbégte ci man mu rëy. nee na moo tax mu ne woon sëñ musaa jaar fa jiituma ma jaar fa jàkk ji julli fa ñaari rakka. nee na bi ma ñëwee nag li ma fi fekk. ma wax na daal di ñëw. nee na moo tax ma di koy wax mu daal di ñëw. jataay bu mën a doon ci jataay nee na jataay bu mën a doon ci jataay yii. am cër. nee na da cee am cër. ndax sëñ sëñ Touba ci moom. ndax sëriñ Touba rek moo nekk ci moom. boolewu ko dara. na boolewu ko dara. du ci zahir du ci zahir du ci baatin. nee na moo tax mu daal di mu daal di ñëw. ci jataay bii. Ah, man euh, man mii nag sëñ Abdou Samad. am na lu ma la junj. nee na am na lu ma la daan junj. lii fekk ci kaw. nee na lii ma fi fekk ci kaw. dara nee na dara tuutiwu ci. dara bettu ci. dara ma la ma la daan wax. nee na la la daan wax. da nga am cër ci sëñ Touba. nee na da am cër ci sëñ Touba. nee na sëriñ Touba rek moo nekk ci yow. nee na moo di sa bëgg-bëgg. moo di sa yitte. moo di sa lépp. nee na man loolu rekk laa jàppoon. ne. incha allah incha allahu dana dangaa am cër ci sëriñ bi. nee euh, na lii. nee na lii zaahir la. nee man li ma doon wax. baatin la. nee na moo tax zaahir sii ma fi fekk. ak baatin boobu ma la jàppaloon. nee na moo ma jàpp. moo tax ma woo nee na moo tax ma woo sëñ Moussa mii. damaa jàppoon ne rek. nee na damaa jàppoon ne rek. dama ñëw dem ci jàkka ja. julli fa ñaar rakka. door a xëy ca kër ga. nee na kon nag. noonu ma ko xalaatee nee na noonu ma ko xalaatee woon. ak lii ma fi fekk. ak lii ma fi fekk. day daal mel ni benn ak junni. nee na day daal di mel ni benn ak junni. waaye nag. nee waaye nag. ci lu wér ne. ci lu wér ne. lu baax du ko bett. na ci lu wér ne dara lu baax du ko bett ci yow. tax kon loolu muy niiru mbett. nee na moo tax loolu muy niiru am mbett. bettu ma bettu ma. nee na noonu rek la demee. lii daal alhamdulilah rabil aalamiina. nee na lii daal alhamdulilah rabil aalamiina. sëriñ bi rek la dolli ci man. sëriñ bi rek la dolli ci man. nee na foofu rekk laa ko mën a tënk. nee na ni ma ko gisee ci zaahir. ak ci baatin. ak li ma xam ci baatin. نينا الحمد لله رب العالمين سيرن بي رك لا في فك نينا خمنا ايتام مو نيك سي سيب سمات نينا لو رك لا سي خم نينا جيرول ماكوي غودل نينا فوف رك لا كوي تنك جيفينم وي نده نينا جيفينم وي نينا ديغنا كو بو باخ نينا داف ماي دولي ليما جابون سي موم رك خمنا سيرن بي رك نا سي موم كون نك الحمد لله ني مكو واخ نينا ني مكو واخ bokk bokk yii ma nee na ci bokk yii ma fi fekk. Ah, nee na alhamdulilahi rabbil aalamiina. ñoom dañoo ne ci sama ndajji xol. nee na ñooñu dañ ñoom dañoo nekk ci sama ndajji xol. ngir sëriñ bi ngir sëriñ bi. nee na noonu rek la demee. Eh, doon bu bett. nee na kon nag bu ma dara doon bett. sëñ Abdou Samad ci dara doon nee na sëñ Abdou Samad mii bu ma ci dara doon bett. loolu dana ma jóge lii jataay bii. nee na jataay bii. dana ma jóge kaw lool dana ma jóge kaw lool. waaye nag bettu waaye nag bettu ma. xaw aw ma ci lenn lu ma ci mën a wax. nee na aw ma ma ci mën a wax. fi mu yegg ci man. nee na ma ko wax ci sama làmmiñ. waaye maa ngi koy seereel sunu borom. waaye borom. mi nga xam ne mooy jëf. mi nga xam ne mooy jëf. di ko seereel sëriñ bi. moom mu nga xam ne moo tax yàlla jëf. moom moom mi nga xam ne moo tax yàlla jëf. nee na moom rek laa ciy seereel. nee na fekk sama xol sedd na. sant naa sant naa. gërëm naa gërëm naa. li nekk fi sama nee na xol. weesu na ko ndax dolliku sëriñ bi rek moo ci am. ndax dolliku sëriñ bi rek moo ci am. nee na loolu nag yëmaliwu ma ko dara. du tey du ëllëg. loolu rek la demee. nee na Mbàkke jërëjëf. jërëjëf. dolli sama dafa gën gën a dëgëral sama yaakaar. nee na dafa gën a dëgëral sama yaakaar. kon eh, maa ngi gën a waaye kon nag maa ngi gën a ñaan. Eh, lii ngay wut. nee lii ngay wut. ni nga koy wute. ni nga koy wute. nga di ci dolli ku kàttan. nga di ci dolli ko kàttan. te it ki nga koy wut ci moom. nee na te it ki nga koy wut ci moom. mu gàttandu laa nee na mu gàttandu laa ngërëmam. muy tey muy ëllëg. muy tey muy ëllëg. nee na nag nag ñu ci fasaale ñun ñii ñëpp. jërëjëf Mbacke. wala astaki lil xel ki min faxdi على غير منهم ولا أستكي للخل من فقد أنهم فمن ذنني في قربتي ذات سللين إلى خير مخن وازن فهو قد أمي لو أتكيل فيه وفقي وقربتي وأرجو رجويها إلى الخير منحني سكوت لو أكسي وأزكى وكان لي بما فاق سني فهو أكرم مكرمي مع جانبي من قرأ كفر بئي فعنهم أماني تاردا كل مجرمي بي من خيرهم كفرهم بي فانم اماني تاردا كل مجرمي لو شكر مني راجيا من ام ادلبي بلا كلفة مني وقد على مخرمي لئن قرني لئن قرني لئن قرني من قره سن آسدا فما قرني من قارني تكرمي عن الجار في البر ساقلا فقد جاءني في البر جود المكرم ومن ساءه كوني لمولاي, لمولاي عابدا وكوني قديما للسفي المقدم ومن ساءه كوني لمولاي عابدا وكوني قديما للسفي المقدم فإني له في البر والبار عابد خديم لمنجن من دواعي تندم ومن صدأني فالمواهب أقبلت من الواسي المغني أفيس المقدم ومن يلقني في البر روما لقربتي فلي من إلهي عوض في كل أيلمي لربي تجائي في أدوري وخيبتي وبالمصطفى له